beneen question. mu ne naka la ñuy defee umra waa umra day jaamu yàlla la ci jaamu yàlla yi ni aj màkk amee noonu la umra amee aj màkk nag dafa am période buñ koy defee am date buñ koy defee maanaam aj màkka moom ci ëram nga ko mën a def ñu jàpp ni li nga def aj la màkkatal mukarram nga ko mën a defee ñu jàpp ni màkk gi mooy tax sa aj nangu dëkk boo mën a dem ci réew mi lu mu sell sell sell nga ni da ngay aji màkka boo fa demee amoo tus pour mu dëkk boo mën a tudd ci Sénégal nga dem fa ni da aji màkka boo fa demee amoo tus demoon màkk mbuubeen gii ci yoonu Louga gi mooy tane ci yow wala makka bara géy gi ci weetu Louga nga demoon fa moo tane ci yow makka daal ca makkatal mukarram nga mën a dem aji ñu nangu sa aj makka période la heure la umra nag amul heure bu la neexee dem janvier umra bu la neexee dem février umra bu la neexee dem mars bu la neexee dem avril bu la neexee dem juin bu la neexee dem juillet umra moom amul heure niñ koy defee mooy su fekkente ni bii da ngaa wàcc madinatul munawwara yaa xam ñaata fan nga fay def da ngay dem ziyaara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem baqiya mooy armeel yi ñu denc ñenn ci jullit ñi armeelu jullit ñi ñenn ci saxaaba yi bokk nga dem ziyaare ko boo fa jugee pour départ pour umra da ngay dem fu ñuy wax biiru ali biiru ali nag boo fa demee foofa day fekk nag armal nga ci sa hôtel ba pare boo génnee génnewaale njàpp boo demee bi biiru ali bu dee dangay ngay sa njàpp nga yeesal sa njàpp julli fa ñaari ràkka yéene nekkat yaa ngi dem pour dem def sa umra soo demee makka la ngay def mooy da ngay tawaaf kaaba gi juróom-ñaari yoon soo paree dem julli ca maqaamu ibrahim soo paree dem daw safa ak marwa soo ci paree dem watu ji boo watoo rek umra bi moom jeex na ci yow lañ la doon tere ci umra lépp ginnaaw bi nga watoo mën nga koo def mais li fekk watoo goo nag amagoo droit pour def yi nga daan def yëpp ba tey yaa ci umra bi moo tax soo dawee safa ak marwa dem tawaaf boo tawaafee dem def safaak ak marwa da ngay dem watu ji soo watoo ba pare umra bi jeex na umra li tur wi rëy rëy nit da koy def ci une heure de temps une de temps mën nga cee umra umra bi jeex su fekkee nag da ngaa nekk màkkatal mukarram mënoo dem biiru ali da ngay dem masjidu aïcha moo gën a jege ki jóge diina mën na jaar Biiru Ali waaye ki nekk Makka nga xam ne jógewul diina dafa ñëw direct màkk kooku moom buy umra dafay dem masjidu Aïcha fa lay tawaafee fa lay fa lay dawalee yéeneem armal ñëw tawaaf bu tawaafee dem daw sa ak Marwa su paree dem watu ji bu dee jigéen la ñu ne nga dagg lenn ci sa karaw pour mu génnee la ci